parce que ñett yëngootul ñoo doon yëngu lu tax yëngootuñu kenn gars yi gëstuwuñ ko ña nga leen di woo foog ni bu buñ nekkoon naan génn leen gars yi fii Sonko sax bu fi ñëwee ne leen duñ génneti parce que dañ leen a jiitu ci ay mbir dinaa leen ko expliquer patriote yi comme nu ma ko waxee dégg ngeen nag discoursu Macky Sall bi lépp waxoon naa leen ko lépp waxoon naa leen ko waxoon naa leen ndeysaan boobu kenn waxagut yaakaar naa démb la seen leader yi doog a génn mais nag di remercier am na ay leader jàmbaar fàq tëdd yi nekk ci Ousmane Sonko yoo xam ni suba ngoon ñi ngi déggante kontaan naa ci ñoom nag barki alxuraan nit yu oyof lañ nit yu baax lañ nit yu yu yaatu lañ nit yoo xam ne yaakaaruñ ni dañoo yor xam-xam gu kenn amul wala yor loo xam ni ñoom rek koo ko yor wala ñoom rek koo ko xam xam nga loolu mooy nax sa bopp ñu jur la jur ma nga am sa xel ma am sama xel nga am say nopp ma am samay nopp ngay déglu may déglu ngay dem jëli may jëli ñëw toog nga foog ne yow yaa détenir le monopole de la vérité absolue et de la connaissance yow rek yaa war a wax kenn du wax doo déglu keneen moo tax ci réer nga jëm moo tax chaque jour bu may gis ay mbir damay gis nu ñuy mbëkkoo di di arrière may ree bugguma ree parce que yëpp xamoon naa ko bu may leen di wax waxu RTS na RTS soxlawuñ ko parce que boobu xamoon naa ne bu jomaay demee duñ ko fa génne bu élément jomaay demee du fa dugg keneen ak keneen moo tax bu ma gisee vidéo bi ay ree la ma def ma ne ñii moo tax gaa yi dagg live ba ma defoon di wax ci RTS naan leen man xamoon moom préparé woon nañ ni jomaay du fi dugg ay élément am ñu ne la Mollah nee nañ représentant man leen yéen yëgu leen lu xew affaire bi ci kaw réunion ca kaw nee nañ jomaay du fa dugg élément jomaay du fa dugg représentant jomaay du fa dugg représentant Ousmane Sonko du fa dugg loolu yàgg na ma def ci live mais il faut yow chaque jour man bu ma leen waxee dara il faut may togg di leen seetaan ngir di mbëkku di ñëw may doog ngir di def ay vidéo di kii may xool naan may ñii ñii dañ may déglu wala duñ ma déglu wala dañ may dëgg nii rek duñ ma dégluwuñ ma dañ may dégg nii mais lii wax naa leen ko man xamoon naa ne bu ñu demee du ñu dugg loolu réunion la woon foofu noonu Cheikh Tidiane Dièye du dugg euh, Habib Sy du fa dugg euh, représentant Diomaye Faye du fa dugg. comme nu ma leen waxoon ñu ñëw di waajal euh, di leen foowee naan leen dem leen wax avocat Diomaye yi ñu bind liberté provisoire ñu gololoo leen ñu dem bind liberté provisoire ñu rejeté ko ñoo ko tey ñoom xamoon nañ ni parewuñ pour libérer Diomaye yi tant que élection passé wul ñoom xamoon nañ loolu. mais ni ñu leen di fooyee neexuma Habib Sy nag bugguma dugg foofu Habib Sy seen seen waay la seen gaayen la seetlu wu leen Habib Sy xanaa depuis bu ñu tegee jomaay ba léegi génnul benn yoon ne jomaay de <laughs> déedéet <laughs> bugguma dugg ci mbir bu Habib Sy gars yi dañ maa ñaan foofu bugguma bugguma ci dugg bugguma ci dugg ma ñaan naa leen ko rek ngir yàlla dañ maa ñaan te dama leen jox kàddu googu Habib si doomu nday Macky Sall la wax naa leen ko bu mu amé problème bu bët Macky Sall ko yanu yobbu ko fajj ko Macky Sall moo yanu dafa amone problème beut Macky Sall ko yanu yobbu ko fajj ko ma indi wat ko doomu ndayam la genn walam la Habib si moom moom mun doomu ndayam la genn walam la bokul ak ñaar ñe dama len ko waxone Habib si mais dama ci wax rek ñu bari taw ñew ñew ci man mooy moolaa moolaa jàpp ci moolaa nangam bàyyi naa Habib Sy bu ñu falee jomaay ba léegi Habib si génnul benn yoon ne ànd nag jomaay génnul benn yoon ne ànd nag gars yi comme nee na yi nu ñëwee jébbalu moom pourtant fale ne jébbaluwul ñëwul jébbalu de ba léegi génnul benn yoon ne maa ngi nii bàyyi naa sama candidature ak yooyu ma nga téye fu mu téye ba léegi ne tekk ma laaj waa Pastef ne leen waa Habib Sy daa feebar wala ñu ne est-ce que feebarul ma ah <laughs> lu tax génnul ñu ne ah looloo jaaxal de nee na tekk daal nee na tekk de man leen d' accord d' accord accord mhm, nañ dem li ci kanam raw li yéen a ma tere ma wax waxuma voilà foofu laa yem donc noo dëcc bokkul ci yéen dëcc enregistré dëcc bokkul ci yéen voilà Habib Cissé un doyen di PDS bu yàgg ànd ak Macky Sall nekk nam yàgg ànd ak waa <laughs> Sonko moo mujjee ñëw ci moom moom mujjee ñëw ci moom ay nitu démbam ak nittu bërki démbam sonk moom mujjee ñëw ci moom Sonko la mujjee xam <laughs> Sonko la mujjee xam ci nit te ak dëkkandoo la dëkkandoo dëkkandoo Sonko la mujjee xam donc yaakaar naa ne ay nit démbam ak ay niti bërki démbam du leen tayle ak nu mën a metti metti metti am na loo xam ne dund nañ ko jaar nañ fa sekk nañ ko bëri na fax ay xarit bëri na ay xarit trop trop trop trop trop donc <laughs> ku yaakaar ni Sonko mooy tax Habib Sy bàyyi ay nit démbam toroxal ay nitu démbam ak noonu loolu da ngay nax sa bopp yow xamoo lu xew nitu démb dafa foor sa ak loolu xuloo xuloo boo leen toogee waxtaan ñaari minute laa la wax juboo <laughs> nitu démb la waaw donc ñu départ lors du débat bi yag, comme nous ko waxee pa bi dañ ne nañ Macky Sall Macky Sall pour reporter l'élection. comme prévu nous ko décret bi nga xamni mo convoquer corps électoral bi mu supprimer ko loolu waxon nako ko ne Macky Sall dina génn dina supprimer euh, processus électoral bi woté dialogue national ba paré redéfinir euh, affaire yi ñu dogo a dem ci ay élection loolu mo waxon nako moy limu wax tay même chose am ñu génn comme ni ñu koy defee di manipuler sénégalais yi ndeysaan naan leen non Mollah est-ce que gars yi yéene wuñ ko est-ce que gars yi joxuñu ko barke alxuraanul karim sa bàyyi maa gën a nekk dëgg maa gën a dëgg jiiñ naa ci darajey Muhammad billahi wallahi wa taalaay sa baay maa gën a bëgg Sénégal sa bàyyi maa gën a dëgg lu ma xeexal Sénégal sa bàyyi xeexalu ko Sénégal lu ma taxaw ci front yi sa bàyyi taxaw ko ci front yi lu ma créer ay mouvement de révolte et d'indignation sa baay taxawu ko mun naa jiiñ ci darajey lesi maa gën a bëgg sa baay Sénégal mën na jiñ ci daraje lezi ma gëna dëgg sa bay yow mi yaakar ne ay ki dañ ko dem dañ ko yabal préparer ko pour mu dem préparer sénégalais ay waxi dof billahi ma gëna dëgg sa bay barki lezi la la wax kon yalla na ma safara jël addi ma gëna dëgg sa bay gëna dëgg sa nday bu say bay juróon kenn ku melni man la la wax sen keur dina changer ci révolution ci dëggu ci xeex ci xare ci jox sa bakkan ci faale wo aduna lijeenti wo dara aduna so bàyyi jurugul ku melni man te du ko jur parce que denrée rare la du njabot go dugg fek fa moo laa moor gën ñu bëggoon alal yor nañ ci angar bu ñu bëggoon alal yor nañ ci angar angar lar fucking do. def ñu jaay kat sen taadi ñu jaay sen taadi ana ñu dañoo dé deewuñu ñu ngi wax sen soxla te pourtant dañoo jaay sen taadi ñu jox leen ñu lañoo taxaw diko maintain parce que street bee ñu formé mbedd mee ñu formé rap hardcore underground na wow na dëgër keung bul jaay songor ngor bañal donte da ngay mëq suuf donte da ngay nan ndoxu force taxawal résister lolu mbedd moñu ko jangal moñu formé du politique bi moñu def jagg du politik moo ñu def cogg du politique moo ñuy def jàgg du politique moo ñu marloo du politique moo ñuy coggloo never you stay real OG original gangster te kenn mënu ko dindi ci ñun benn doomu politicien laa la wala politicien bu taxawee ñu jaayu pervertiru xoolal ñun na yàlla nañu yàlla toroxal wi stay real maintain dëgër këcc waaw kongu diriger gang bi nekk tëg Nous nous ñu jaayu politiciens Nous du ñu joxewu dama ne Macky Sall ñëw na décret bi convoqué corps électoral bi mu supprimer ko di xaar assemblée nationale préparer renvoyer élection yi

Sonko denrée rare la waaye cay Sonko bu rëccee sénégalais yi ñi ngi def lu tout pour Sonko mun a ñëw mais Sonko bu rëccee sénégalais yi dina metti ci ñoom de parce que gisaat ku mel ni Sonko moo metti de <laughs> yombul de gisaat ku mel ni Sonko barke alxuraan bu leen rëccee rek ñu yàqu duñ ko amaat fii ak cent duñ ko amaat wax na ba wax leen lépp résumé teg motax nitu Sonko buñ ma wowe dem neena len li lii avant mo am neena len leen jël li Macky Sall di wax ngeen wat ko ci Sonko wolu ngeen ko bu len ko faxastal bu len ko galgal borom bop la yalla dako may jël len limu wax ngeen yobbat ko mu xalaataat ci joxat len ngeen yobbu bu ci kenn tek kaddu bu ci tek kenn lu Macky Sall pare bu ci kenn ci yeen tek kaddu jëlaat len limu wax ngeen yobul ko may ko tan dina ko geustu dana ca wax te dina len ko joxat te du ci djoum lolou la conseil amna ke ca genn sax bañ ca waxtan dafa genn ma gis ko mu publier ni ay skay ay mbir ya de doyna war ndaysan di kii yeeg boobu xamul sax yëpp waxtan nañ ci donc nañ jël mbir yi ki préparer won lepp muy Ousmane Sonko nañ jëlaat mbir ye yëpp joxat ko te deglu ko dina len ci wax lu leer nañ di la leen wax ku nekk fan ngay taxawee match bi bu jaxasoo jaxasoo bu ngeen delluwaat ci entraîneur ba mu wax ku nekk sa position. waaye nag dinaa leen waxal dara comme li ma leen waxoon rek metti na démb bu ma koy wax lool nag bëri na it ña ca dingat ndeem affaire day bëri infiltré mais comprendre nañ ma ne leen dialogue ma ne leen nañuy def dialogue dialogue Macky Sall ne dialogue inclusive lan la ñu waxoon élection inclusive Ousmane day bokk e-, élection yi musul mujjul inclusive Macky ne leen non ay élection inclusive munul am te dialogue inclusive amul inclusive mooy lan dugal ci ñëpp kon nag dugal ci ñëpp jooju inclusive boobu sonkoo ko waraloon kon indi nañ dialogue inclusive kon Sonko Macky Sall ubbil na ko buntu na ko kaay kaay ñu dialogue parce que boo ko yaakaaree ci nit yii duñ la ci génne dama lay dóor ci kaso bi ñuy jaayante nga may jaay prek ma lay jaay prek ma dóor la fa dix ans de prison yow ak jomaay fekk leen foofu noonu matraqué leen ci biir kaso bi dóor leen dix ans de prison sénégalais yii di leen wax mosuñu leen ci génn dugal naa la kaso génnewuñ la fekk naa la ci biir xañ la xañ la ñëpp interdire ñëpp ñu gis la mënuñu la mënuñu la ko xeexal say nit a nga ci kaso ba bu ma leen génnew mënuñu la ci génne donc il faut ñu wax loolu la ko Macky Sall wax il wax parce que bokay jaay ma won la ni affaire bandi la te sénégalais duñ la atte dugal naa la ci kasso bi até wuñ la ñëwuñu dé fekk ñu la ba légui yaa ngi ci kasso bi di corrupir bu mu ñëwaatee di discuter ak yow nga may jaay prek ma fekk la fa dur le 10 ans de prison yow ak jomay continue dem sama yoon te duñ la ci génné dañuy wax rek dañuy wax rek donc kay comme ay élection inclusive lañ soxla won ma génné la ca te mënuluñ la dara inclusive fa dem na ñuy wëri jomay te ba légui jomay ma ngi ko téye ma ngi poñe jomay jomay rëccu ma ngi ko poñe ni ma la poñe laa poñe Diomaye te tamit eh, damay reculer élection yi te kenn du yëngu bal du tàkk kon damay am temps likide soit nga ñëw discuter wala ma liquider Diomaye si boppam Diomaye yow Diomaye moom day jeex lu mu wax da ko leer rek kaay ñu discuter mbaa ma liquider la yow Diomaye te sénégalais yi du ñu yëngu te sénégalais yi du ñu bouger loolu moo tax mu ne wax dialogue inclusive loolu Sonko ko waral moo tax mën la yabal na ñaari yoon ci moom ne dem leen ngeen wax ak moom kii di Ousmane yaraa dem na wax ak Ousmane Sonko ñaari yoon toog naa ak moom wax naa ak moom donc il faut ngeen bañ a sànq Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy cinquième président loolu benn borom xam-xam daf ma ko wax mais dama ko weddi woon mais nee na ma woon bu ñu waxee jomaay daf ma woo ab doomam laa doon dégganteel moom moo ma woo kilifa gi daf doom ji moo woo jox ma kilifa gi ku mag la nekk Casamance ca àll ba mu ne ma doom. dama waxone sama dom, mako yabal man dama lay setan ma yabal sama dom, pour mu wax la ne la Sonko 5e president ma ngi gis nak ngay di am indi jomaay du jomaay de ma ne ko ah, mu na ma waw mbir ye dina mujj jaxaso lendeum lendeum bay affaire ba ñu wat ko kilifa gi moy wax de ñu wat ko ba Ousmane Sonko ñëwaat Ousmane 5e president yalla buy defar day melni luy mais affaire bi numu amé ni dama na yar. ci ñetti fan yi ma ne yar sama xel demaat ci kilifa gi si ne seet waxoon na ni dina wëlbatikuwaat ba affaire ba carte ga rejoué waat donc yàlla noppi na il faut ngeen dal ànd ak yàlla tamit ci li mu bëgg ngeen bañ a dem ak xol kese bi li ngeen bëgg noonu li la donc doucement yàlla ngi joué ci carte gi nee naa leen dellu leen ci allahu subhanahu wa taala mi ngi ci carte gi mi ngi ci carte gi du seen doole kese ak seen i pexe yàlla ngi ci carte gi